ah <laughs> Sénégal yëpp ñu ngi coow. Hmm. sëñ Bada ak Bada wax ji ñaaw na. te Sénégal yëpp nee na yow yaa leen jaxase. sëñ Bada ak kan. <laughs> ak euh, Nogay Nogay Kara. waaw loolu loolu. Euh, euh, kaay ma ma profité occasion <laughs> leeral man duma journaliste créateur de contenu la encore une fois duma journaliste bu ma tëkkalee y a ñu ngi may. message si si TikTok bi si message bi TikTok maa ngi gis ñu may message di ma saaga di ma menacé comprendre nga si journée kenn xamul journaliste nga kaso lañ la war a yóbbu xamul journaliste kaso ngeen mooy kon kaso ngeen ma sénégalais yi su nekkee kaso ngeen ma yéene comprendre nga amin waaw parce que man créateur de contenu la damay gis loo xamante ne du ma journaliste du ma journaliste créateur de contenu la comprendre nga jëluma décision tamit di jaxase jëluma décision di jaxase di gis ñaar ñuy xuloo ñaar ñuy xuloo comprendre nga ma wax nag lan laa si mais loolu du ma wax lan laa si jublu comprendre nga keroog jël naa jël naa kii. Euh, euh, kii kii tamit. Fatou ah, ah, ah, le cas de Fanta tamit ñëpp woo ma di ne ma yaa jaxase. yaa jaxase yaa jaxase euh, mam euh, kii mambasin ak ak yaa tax ñu yóbbu ko police yaa tax ñu yóbbu ko police. taxaw taxaw ma ñu ñoom seen règlement la man nekk si man damay def sama liggéey comment. mais wax ji moo ñaaw quoi su demee ba suñu war a def live. naa la yow laal naa la. waaw si kàddu gi la ñaaw nga. tëddee naa seeg naa yow ñett yoon. waaw même bu dee sama awra dafa ndaw yow fëgg naa la fëgg yi métti. Uh-huh. xam nga. jël bi tamit nag sa affaire dafa tuuti. waaw lépp yow loolu ci coono yaa yaa ko a man. Nogaye Kara maa ko woone ko foo nekk jël woon jël ma woon intention boobu mu ne ma ni nañ man ko dañ ambiance rek comprendre nga ma laaj la ni si affaire yi euh, euh, ma laaj la si am nga ay contrat si ah parce que dangay dem di TikTok da dangay dem si si si si place nit ñi di TikTok est-ce que ñu ngi lay fay wala duñ la fay parce que lii ngay def danga see war am xaalis man loolu laa ko wax mu ne ma waa ñëwal mu sorteel ma ko mais révélation xam nga soo jëlee nit ki émission yenn saa yi day révélé comprendre nga révélation yooyu man mun mu ko nekk comprendre nga parce que xaaruma woon loolu sax si moom parce que après la ni ma la ma sëñ Bada daf maa violé daf ma doon violé ma ni nga ni man ko en tant que ma woo sëñ Bada ne ko sëñ Bada bala maa dugal vidéo jotuma ko man naruma ko dugal ma ni ko sëñ Bada da am nan nga nan nga da am problème ak ak ak Nogaye Kara mu ne ma aw ma problème ak Nogaye Kara ma ne ko ne ko ah Nogaye Kara neen lii neen lii mu ne dugal moom moom asaf dina dugalal comprendre nga man jotu jëluma jëluma décision boo xamante ne damay jaxase kii jaxase kii ñuy wax lu ñaaw même journaliste yi def yi si def journaliste yi nga xam ne def nañ si ay ay cas di ma saaga comprendre nga am na ñoo xamante ne ñu gis naa ay vidéo yoo xamante ne ñu ma siy saaga capté naa vidéo yëpp yi ñu ma saaga yëpp teg naa ko damay xaar ba ñu tabax si ba pare ñoom ñëpp dañ leen woo par kenn par kenn comprendre sama liggéey laa def non du fa ma plainte leen parce que ñu may ma jàmm parce que sénégalais dañ maa sonal lu jot comme ñoo sénégalais ñoo dof ba ma leen di jaxase ba ñuy xuloo di dem ay gendarmerie fu ne ñu dem fa comprendre nga man maa tey comprendre nga. man léegi waaw léegi yow est-ce que est-ce que lu am na wala amul. mais sama yoon nekk si ñoom ñoo ko sikk sëñ Bada ak ñoo koy teraa ñoo sikk loolu. Euh, euh, sëñ ak ñoo koy teraa ñoo man sama yoon nekk si su ñuy dem si appartement sama yoon nekk si ah kii sama yoon nekk si waa kër ay euh, rek benn magu ñoo koy teraa woo na ma sànq comprendre nga expliqué naa ko comprendre nga. kii nee na wax ji ñaaw na wax ji ñaaw na mais sama yoon nekk si man ku dof ba ma jaxase la ba nga xuloo ko ak moom ah yaa ko tey barki euh, fan yi man euh, euh, Mambasin bi ma ko jëlee émission ba dem ah dañ ma am na ku ma woo ne ma Fanta Boobu laa soxla bi ma def demee kër Fanta Boobu. soxna si bi ma demee bi ma demee si kër Fanta Boobu ah ñoom dañoo pare lal seen dil bëggoon maa dóor ah mais bëggoon maa attaqué mais atta dawuma. damay wax dawuma jour boobu dawuma damaa am si yenn li ma nekk mais dawuma dem wax naa ko nee naa ko dawuma li may liggéey dama koo ñeme li may def dama koo ñeme am naa sama avocat taxal ma la am naa sama avocat ah am ñu nekk sama ginnaaw am ay ponkal ñoo nekk sama ginnaaw Sénégal yéen laay wax menacé wu ma defuma dara damay dox di dox ba barki démb fante bu nee na ma di nga dox ñu jam la faaga comprendre nga barki seexul xadim andu ma kenn fii laa koy waxee ñu bëri journaliste yu bëri woo nañ ma tey suba ne dama ngay jël man rek may dox man rek fu ma neex damay dox ba sama tànk weex fu ma neex laay dugg ba kenn xool ma bët boo ma xool ba kenn laal ma laal ma ku ma laal barki Serigne Touba dama lay rey barki alxuraanul karim billaahi wallaahi talaahi ku ma jege wu xool ma bët boo xam ne neexu ma dama lay tiire barki Serigne Touba billaahi wallaahi taala. da nga am fenn la. <laughs> mbay taxaw leen may taxawal yow may taxawal may taxawal may kër tiire nga ne may da nga tiire yow may may neen day tiire Serigne Touba ku ma laal non non non non ku bees da ngay tiire yow da nga am fetal da nga am fetal léegi yow barki Serigne Touba yor naa fetal yor naa fetal yor naa pompe à gaz mélange yi c'est trop c'est trop trop c'est trop mais est-ce sama liggéey la ma neexee eh? yow su ma yéen a dof sénégalais ñoo dof ba ma leen di jaxase ba ñuy xuloo di yóbbu waate si yoon taw ñu dem